السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi bokki biti réew jàmm ñëw na mbég mi ñëw na xéewal gi ñëw na sëñ bi woote na sun borom dafa wax ni yaa ayuha allazina amanu stajibu lillahi wa li rasulihi isa daakum lima yuhyikum borom jamono woote na jëme ci mbégte jëme ci luy xettali bindéef yi muy bisub xasida boo xam ne bii ci luñ mas a xam ci diiru ban fàttalikook tey journée xasaayit boo xam ne bii borom Touba moo ko wooteel boppam fii ci Touba loolu daal képp ku ko fekkee war sant yàlla bu baax ndax réew mi soxla na ko bindee fi soxla ko adduna soxla ko ci anam yëpp kon nag na ñëpp jóg ku ñu ragal sa ginaaw na nga ragal sa bopp sa biir dikk leen wuy si ci wooteb sëñ bi bu ko defee aajo yëpp dana faju mbir yëpp dana jub noo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba sëñ bii ko woote di Cheikh Mouhamadul Mountakha ak sëñ bii mu ko teg ci loxoom di rakkam di naayibam Cheikh Hamzatu Mbacké ibnu Cheikh Souhaïbou ak rakkam yu baax yi ak bokkam yu baax yi ak kuréel bii nga xam ñooy xisbu tarxiya sëñ Yuusu ne ci bopp bi ñu jox ko liggéey bi dénk ko ko ak mboolem taalibe sëñ Touba yi foofu waay mën a nekk na ñëpp ñëw wuy ci sëñ bi te défé ko nim ko bëggé insha allah taala lu way bëgg xaj na ci yàlla nañ ko féké te am ci ngërëmam bi jaahil khadim wa izati maqdumihi sallallahu alayhi wa sallam kon nak ñëpp nan waaj wuy ci bis bobu nga xamni moy fukki fan ak ben ci wéru mois de août war a ak ben fan wala ñaari fan ci wéru muharram yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jam te sëñ bi am ci lim bëgg bu amé lim mu bëgg danañ am li nu bëgg wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu